sa baay jaket, tabax jàkka ji bu ko sa baay tabaxoon sax taxul mu doon seen jàkka ji ah, suñu jàkka ji nga ñëw seet suñu ku la seet si ngeen ngeen di dëmm ngeen def laqat di lek, koo leen di lek ngeen di ñëwul ñëwul bu fa doon ñëw sax ñun ñoo koy bàyyi jomaay bu fa teg tànk de ay dëmb lañ paa yu sadi nga ngi noonu lekk rek lañ lek lekk nit rek lañ ñuul dañ lay lekk ba yëy say noonu lañ def Macky Sall lañ ay nit lañ Wade na leen fa def ne bu Abdoulaye du fa du leen jege Abdoulaye Wade du leen sax jege xam na leen nii la toog na fa ay lekk katu nit lañ paa yooyu dañuy seen ngatnam garam bu lekk katu nit warax nit la ñuy def laa la wax boo dinañ la lekk léegi mu naan ay ñëwal seet suñu dëmm yooyu bu leen leen suñu jàkka ji suñu jàkka ji suñu jàkka <laughs> kooku dañ ko war a ñuus mu jóge foofu moo pa yooyu toog foofu sol seen ñetti abdu